waaw suñu digganteeg Sonacos moom mooy ndey huiliers yi ndax moo fi jiitu comme ni ko président FENAPS waxee Modou Fall dafay yàgg euh, mooy suñ premier partenaire ah ñu ngi doon liggéey moom nag di ko livrer karo usine jël suñu alal di ko jox foofu nag des fois ñu jël ko joxe ko mu def fa temps lool maanaam norme yi ñu diggante woon ci engagement contrat yi duñ ko respecté waaye teewut ñu ngi jaajëfal DC bi Pape Dieng euh, ndax mun noo dem bàyyi ko mu dem bàyyi noonu mooy suñ ndey ci ibile yi au contraire moom mënu amel donte mu néew mu bari tuuti xam naa sax am na fu taux bi fi mu na ba daanaka amatul solo. Euh, euh, bi gis na trop ndax ni ngeen di jëfandikoo ak ni ngeen di manipuler ak xaalis euh, waaw loolu ñu ngi ciy dox xëy na comme lox rek. gone moom bu juddoo rek ndox bi du gaaw waaye tey daa benn solution feeñ na ci côté boobu xaalis bi ni ñu koy consommer ak liquide yi nga xam ne tey bu nit ñëwoon tey jaay la nga war ko fay sec xamul luy sec du ko nangoo jël loolu problème la waaye nag gis na ni solution mi ngi feeñ ndax euh, banque bi ëpp luy jëflanteel muy CNCAS Touré wax na ni ñu ngi préparal site boo xam ne dañu gën a jege pour ñu mën a gën a invité loolu. tey xam naa am ndax état bi 210 nañ ci marché bi loolu fan waa état session euh, campagne bu bees bi jotagul prix bi mais bu weesu 210 la ko fixé woon ñu gis ni Touba marché noor bi pëcc xoo gi ndax huilier bi ni ñu def lay def da jël xaalis si banque bi di liggéey pour am recette ñu ngi dañuy jël xaalis di ko liggéey su tegee marché am 14 francs teg ay frais mu taxaw 237 virgule 5 ñun suñu yokkee it war naa mën a am fa mu yem mais pas ñu évaluer ba duñ mën a am dara si liy liggéey. loolu mën xam ne lu normal am ci rek comme booloo doon doole soxna maam xarit président Traciat kuréel la fi jiite ci dëkk bi di kilifa. ah ñun membre adopté yi li ma wax léegi rek buñ dee 100 si acteur bi cent yi 90 yi bokk nañ adopté 10 yi des i doom ñu ngi si ak seen i kon buñ lëkkaloo dañu am doole. Euh, wadd commerce euh, contrôle économique wax na si daaw ànd na ñoom liggéey liggéey bu mucc ayib ren pare nan si pour sécuriser ko ba képp ku jàdd si euh, norme yi yoon teg yoon dal sa kaw. situation gerte alhamdulilah rabbi nañ si wax ndax gis na ni production bi ñu am ñaari at yi gis nañ ko am kon loolu xëy na baaxu yàlla ak ndimbal ndimbal yàlla ak baaxu sëñ bi kon donc loolu dañ fiy sant yàlla suñu bu baax a baax. paré nan nak si dugg ci campagne tax ñun xamul lu gerte monu yobbu fiñ tollu lu am gerte kon mom paré nan si suñu pexé ak suñu moyen and ko état bi ñun nak amul tonnage dañ ci nekk ndax fim ni ñu wax ak yeen jiit état depuis un mois ñi ngi liggé si gerte loolu tam bokku na si bu gëné formaliser wu da na mëna dem ba xëy di départ ak état waye nak xam nga ki am yitteem di baykat bi xalat frutuba fu Touba andi fi marchandisam ñu itam ñu yor suñu xaalis gis ne ay gan mën na leen ko jàllale dañuy daal di commencé liggéey. tey jafe-jafe jan la ak yi amoon de dafa mel ni séminaire bi solution feeñ na si ndax bi si jiit mooy ADRA doon membre senior yàgg dañ ko topp Baye El Hadj Fall joxe na si lu leer jàpp na ni xëy na ñu ngi si ay euh, négociation pour nangul na ko. ndax convoqué woon nañ ma bi ñuy négocier prix bi waaye boîte email bi mu ko envoyé dama ko yéex a gis moo tax présenté wu ma beneen bi des mooy surtout le problème bu mag mooy financement ndax ñun ñoo dajale suñu biir rek waa adop chiffre d'affaires bi ñu def si un an et demi 60 milliards suñuy pexeek suñu xaalis yi ni suñu bàyyi bàyyeeloon ak ay volonté moo ko def kon nag jaadu na fi mu ne nii banque encompagne woon ni mu accompagné yeneen kuréel yi dafa leen lettre de garantie ñu mën di liggéey pour développer réew mi waaw loolu li ma ci constat li si ëpp chinois bi moom mooy ñëw étranger boog ndax du ñoom dong ñoo jënd gerte sous-région yi àndal eh, Mali yooyu dañ fi ñëw jëm si gerte waaye gis nañ ni fi mu gën a méttee mooy gerte gi dem dakaar port nga xam ni tey am na ci partie boo xam ne moom yow client bi jaay sa gerte yaa def ndax boo demee rek ci par téléphone en même temps kooku qualité bi nga ko présenté woon échantillon bi yóbbuloo ko loolu da nga am problème waaye li ci ëpp gis nañ ni ñoom ñoo ni utiliser nax nu si dana yóbbu gerte sax ba mu ñu dàq ko te du am benn condition loolu nag ñu si ñaan état mi nga xam ni moom moo ñu jaboote ñëpp te ay citoyen lañ comme ni ko ñëpp doone te bëgg nañu tegu ci aw yoon lu sécuriser nu adop ba tey gan gu ñëw am na sees mi ngi financé mi ngi def développement mën a jaar si moom su jaarul si moom autorité yi nga xam ne ñoom lañ séqal dëkk bi ku si mën a jàpp ni teg ko ci aw yoon ndax bokk na si li ñu gën a tardeel muy siin Burkina Faso gi rek boo fa demee tey di ceccax wala xorom loo mën di jaay dangay jaar si promoteur ba fa dëkk sinon doo mën a jaay doo mën a jënd kon jàpp naa ñu itam si wàllu technologie ak démocratique ak fi Sénégal toll wér na ko ne pays africain yi ñu bari ñu ngi bëgg a mel ni moom rafet naa njot comme xëy na organisé wu nan état danoon jàmbale si loolu Touba benn industrie nekk fi boo xam ne mooy créer emploi fi nguur waroon a nekk ñu nekkal nañ ko fa kon suñu demee ba nguur reconnaître tàllun loxo am projet boo xam ne da ko signé ak Rasiat protocole muy 20 mars jox na su ñuy liggéey Rasiat di presse huilier ñun ñu décortiquer gerte mu wér ni naat bi dan daawul liggéey te li nga xam ne daawuñu ko liggéey mooy ñàkk gis fu gerte gi jëm projet boobu mënu jox olof na def ni ëmb sa sangal ëmb sa gerte état yëg nañu gis nañu ñuy ñaan yàlla ñu suñu doxin ci dëkk bi mu am ak soppeeku ci moom